fii ñu taxaw tey bëri na ay autorités yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñu nekk muy Galsen Sénégal euh, jàpp naa ne ñoom ñëpp jaar nañ fi bi ñu nekkee ci université Cheikh Anta Diop doon doon doon jàng mu nekk place boo xamante ne ni naturellement dañ ko jagleeloon li nga xam ne mooy ndaw ñi jàngkat yi ba ci sax ñi nga xamante ne ni ay artisan lañ nekkoon fi doon fi daan seen doole bi ñu demee nag tey ba def ab seetlu gis ne am na tey koo xam ne occupé na ko d'une manière anarchique xamuñu nan la def ba am place bi donc nous avons juste posé des bagages am commencé à faire des constructions et nous avons sax autorisation de construction parce que place publique on n'a rien contre Abindour mais ce qui nous mooy place bi nañ ko la ñi nga c'est les étudiants venant de partout toutes les facultés confondues Nous avons fi des di fi ce kenn alerté fait ah, en tant qu'étudiants, étudiant dañu def càmbar xool gis na tamit bon li ni amna ci biñu xamé lolu ñu ci def ñu nit suñuy saytu di di laajte par ci et par là comme Sénégal lañu nek naturellement l'information ça passe vite. ñu ne Aby depuis 2009 la ñu Aby ñun ñoko dalal fi ci place bi mo ñew ñu dalal ko bobu boobu du dara dafa ñewon di def ndank ndank ba xam ci ban fan lañu ñu ñun mu mëna xol fan lay jaar pour nu muñu pousser fi donc ñun dañ ko dalalon parce que dañ ñu boole woon ak mom pour ñu jappalé ko comme sœur. ñu né bon nañ def loolu ñu nañ lañ ko jappalé comme sœur biñ démé nak ba affaire bi commencé indi ay problème ci biir ñu am problème ak mom dem ba mairie toog ak maire bi pa la Samba am personne ñu waxtaan suñu biir comme quoi que dañuy xon nan lañuy euh, nan lañuy joxé fi mom ñu jox ko ben parti ñun ñu jël ben parti comme ça ñu mëna liggéey ensemble ñu d'accord ci loolu signé ko ñun ñuy war di liggéey fële di exposer fi pour rek baña am ben problème ak mom donc biñ démé demee ba juboo ci loolu mu toog ba mu neex ko un bon jour mu ñëw rek commencé def ay kiyam pour suñu xeer yi génn ko lépp ci biti def ko comme nu mu ko neexee quoi loolu ñu dem ba ci biir ñu arrêté ko mu taxawaat ñu demaat euh, ba à un certain moment KFC bi ubbi bi KFC bi ubbee nag boobu la affaire bi commencé parce que KFC bi dafa ubbi mu ñëw KFC titre foncier la ñu yor fii espace public la donc c'est pas la même chose donc moom bi KFC bi ubbee nag mu ñëw comme quoi que dafay ubbi fii moom it par force si yaay dégg li la wax commencé jënd ay ay affaire am indi di teg indi ay fleur am di defar di teg gis nga comme ni mu ko defee nii suñu xeer yi muy jël par ndànk di déplacé fee ko njëkk a ci suuf sa fële am yu toj ñu bàyyee ko foofu comme ni mu ko defee lépp dama ko jël ay photo donc bi mu ko bi ñu ko bàyyee foofu lundi 22h ci guddi 21h30 jàpp 22h ci la ñëw ak ay nitam. ak xawma ban genre auto la indi yeb xeer yeb yobbu ko sanni ko fele yi toj yi genn yak na lu bëri dal ay yi mu yak bëri. mën na dem ay 7 millions et quelques parce que euh, parce que œuvre d'art la et puis du du du œuvre yu ñuy wanter dañ ci def ay ay weeri weer pour liguey ben nit la comme ñun sénégalais comme ñun fekk ñu fi ci espace public bi fekk fi place bi ñu ñu yàgg fi lool mu ñew ni da ngeen fi joggé par force mom mu def fi lu mu fi bëgg def lan la fi def ay buvette ay boyon joggé sport tok nan café lool moy lan. ñii fi ñii di fi liggéey pendant des années nga ñëw ay ay borom kër la ñu yor jabar yor ay doom nga jële leen fi sànni leen fële nag yow nga toog gérer quoi di dund ak seen njaboot pour quelle raison. dañ leen di wax benn ultimatum de 72 heures lañ leen di may ngir ñu quitter les lieux. manam yëf yi ñu wat ko ñiko ko moomoon ndaw ñi nga xam ne ñoo fi doon nek diko fréquenter mu nekkoon des étudiants ou bien consorts ñëpp ñu bàyyiwaat laan fi ñu délo wat ci seen activité à défaut de ça ñun en tant que jeune dinañ continuer di jël suñu responsabilité et yëf yi lu mu laaj dinañ ko def euh, bañuñ ci ab marche bañuñ ci def ab sitting bañuñ ci def lo xamanteni ni voilà en fait autorités yi nga xamné c'est les concernés directement dinañ xamné en fait ndaw ñi par nañ pour lépp ngir seen place bi ñu bàyyi leen ko ndax japp nañ ni seen yef la. diñu mëna wax ci place bi c'est un espace public à l'heure où le ministre de l'urbanisme dit désencombrer Dakar mais waruñu occuper un rond-point c'est ça la vérité et le rond-point encore une fois c'est taxaw qu'on mais du rond-point bon comme les autres rond points rond-point bi devant le prélat ici c'est le palais du prélat man musulman là mais je parle au nom de la communauté chrétienne il faut que nous bañ mais quel moussoul dem si ben devant le Khalife général d'une confrérie mais di fa def ay gargote ça c'est un deuxièmement le rond-point est extrêmement stratégique parce que c'est devant une ambassade c'est l'ambassade du Mali il faut qu'on arrête quoi dans ce pays on ne peut pas continuer à travailler dans la cacophonie donc nous lançons un appel aux autorités bëgguñu yëngalaat réew parce que man nañ ko man nañ jël suñuy plateforme génn fi commencer xex et on est déterminé pour ça la préservation de l'environnement, qui est un bien commun. Donc le code de l'urbanisme, le code de l'environnement et tous les autres codes qui s'en suivent. Alors, nous nous foulons du pied, c'est la loi.